donc euh, ñu dellu si waat euh, si plateau bi dalal Souleymane Ndiaye di chargé de revendications euh, bu travailleur bu port autonome de Dakar maanaam syndicat bi nga xamante ne moom moo majoritaire fële sa port autonome de Dakar ñu ñëw nag si jafe-jafe yi nga xamante ne liggéeykat ñu ngi ko fay jànkonte loolu mooy laaj bu njëkk bi wala balaa ñuy dem si laaj bu njëkk bi fa defal ñu déjà l'état des lieux du port autonome de Dakar. oui merci beaucoup ah actuellement l' de des lieux est que. soo ñu ko mënee faram fàcceel si olof rek. waaw ok. d' accord. <laughs> Ah, merci beaucoup euh, euh, fi mu toll nii li nga xam ni mooy euh, nu ñu ko mën a waxee état des lieux mooy nekk maanaam nekkinu port bi. Mhm. moment bii nii mooy dañu am direction général bu bees. bu mhm. ànd nguur gu bees. Mhm. bon xam nga direction général bu bees moom bu ñëwee noo def euh, day am ay changement yu am. d'accord day am ay anomalies yoo xam ni comme signalé nañ ko ñoom dañ koy bëgg a corriger. <laughs> maintenant ci lu demee noonu yaa yu de dafa am ay yëngu-yëngu syndical. Mm-hmm. waaw xam nga yëngu-yëngu yi aussi laalante la. Mm-hmm. léegi ci biir laalante bi mooy ñi fi nekkoon yor syndicat yi ak ki fi ñëw bees am ay euh, ponk yoo xam ni déggoowuñ ci. Mm-hmm. léegi comme déggoowuñ ci mu am ay jafe-jafe. mais jafe-jafe yëpp mën nañ ko ñoŋal. jafe-jafe yëpp mun nañ fexe nuñ ko saafaraa léegi ba tax am ñu ci gaañu ñoo xam ni dañ doon représenter personnel bi tey jii bon ñu licencier leen si te ñooñu noonu ay acteurs lañ clé ci bureau syndical yi. léegi ñun comme chargé de revendication lañ tey ñëwuñu fi pour revendication. mais dañ fi ñëw pour exprimer wu autorité bi. xool nu mu def ba jéggal leen parce que ay père de famille lañ ay nit lañ yoo xam ni dafa am ay yeneen ni mbooloowu nit yu nekk seen biir mhm. yoo xam ni ñoom ci ñoom la ñu yaakaar mhm. ci seen ñaq mhm. léegi aussi dañu ñëw aussi pour exprimer wu wax ne kilifa gi pare nañ pour jàppale ko parce que ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor ku wax port autonome de ndakaar wax li nga xam ni mooy lépp lu jëm ci askan wi fa muy jaar mhm. bu dee fukk juróom-ñeent yëpp port lay jaar donc port mu nekk si jàmm nit ñi di nekk ci jàmm mooy réew mi nekk si jàmm mhm. parce que bu port yëngoo rek soxna si mhm. tey jii madame Cissé yow danga koy yëkk parce que lépp looy jëfandikoo boo xoolee ci port bi lay jaar léegi di tàllal suñu loxo encore autorités yi bees yi si réew mi en l'occurrence monsieur Waly Diouf Bodiang di suñu kilifa ñun ñëpp di ko woo si jàmm di ko woo ci pare nañ pour accompagner ko liggéey moom ci jàmm ak salaam di ko ñaan aussi lii ñu ko toppee di ko ñaan muy ñi nga xam ni dañ leen a jëlee seen place liggéeyukaay muy temporaire di ñu ñu jot a licencié mu xool nu mu si def ci nu mu gën a gaawee. est-ce que est-ce que ñoom moom Waly Diouf Bodian mën nañu wax ne ne moom bëgg na jàmm wala sàkku na jàmm bu fekkee ne déjà euh, euh, bu ñu sukkandikoo si yenn kàddu yi euh, que ni moom déjà bi mu ñëwee si la licencié lu toll si 700 travailleurs 700 employés donc jafe-jafe yooyu noonu est-ce que tamit avant muy licencié warul woon benn état di lee toog waxtaan ba pare balaa muy doxalee nu nu mel. waaw am na ñu ko ak ma yeggali foofu muy bu fekkee da nga def sa statut waxtu WhatsApp statut ba neexu ko mu mu mu mu licencier la. est-ce que tamit fii nii dañoo perdre lii de liberté de la euh, liberté d'expression. waaw am na ñu ko euh, am na ñu ko interpréter noonu. Mm-hmm. mais xam nga ñun position bi ñu nekkee aussi moment yi nii dafa xaw a difficile. Mm-hmm. parce que tamit euh, nit ki bu dee da nga ko statut. Mm-hmm. am loo bind ci statut bi ba mu am moom nu mu ko gisee. Mhm. ay perception individuelle am parce que nit nit rek la. Mhm. moom mu jàpp ni dañu ma dañ ma dañ ma dañu dugg sama biir orgueil. mu mhm. jàpp ni dañu dugg ci sama biir image. parce que dafa am lu muy incarne moom it. Euh, bu ñu génnee ci cadre professionnel bi day def benn activité bu ñuy wax politique. te ñoom gis nañ ni ñu jotee réew mi. dafa metti trop comprendre ga léegi ñun dañ koy comprendre loolu. aussi tamit syndicaliste bi moom jëf bi mu jëf. ba tax problème bi fekk ko ci tey moom dem na ba reconnaître ne dafa dépassé cadre syndical bi dugg ci intimité nit ki. Mhm. ba mun a ternir image mais loolu lépp comme ñun ñoo am lu ñu bokk te mënuñu ko séddoo muy mhm. port autonome de Dakar mun nañu waxtaan mhm. teg ko ci wàllu defar ba nga xam ne dinañ koy rectifier loolu noonu aussi droit syndical liberté syndicale nit ñi ñu ngi koy wax dafa yaatu mais am na foo xam ni foofu la commencé mais mun nañ am foo xam ne dañuy mhm. jàpp ni foofu la yem te fi mu yem mooy législation bi wàllu yoon mhm. parce que yoon bu taxawee rek après yëpp day xaar mhm. léegi bon xëy na xam nga syndicalisme Sénégal lu jëm ci wàllu formation ak dialogue social day def defoo léegi. Mhm. ba tax na yenn saa yi nit ñi dinañ exagérer wala ñu extrapoler si yenn yi te duñ si bàyyi xel. est-ce que Waly Diouf Bodiang bu fekkoon ne xool na ko si boppam rek que waroon na mën a sanctionner bu fekkee ne kàddu gu ñu yëkkati ko teg si moromu nit rek est-ce que Waly Diouf Bodiang bu doon xool na ko si boppam rek. Mhm. est-ce que waroon naa war a mën a sanctionner ndaxte kii dafa yëkkati kàddoom. Mhm. waaw moom xam nga moom exemple de société la moom Waly Diouf Bodiang boo xoolee il a subi toute forme d'injustice. en matière euh, professionnelle ci milieu impôt et domaine bi mu doon yëngu ba ci domaine politique bi mu nekk léegi moom moom mooy exemple de référence bi léegi moom li ñuy xaar ci moom mooy moom mu won ñu yoon parce que ñun si li ñu nekk di ko def sax moom moo ñu ko dax mu won ñu yoon léegi ci biir won ñu yoon boobu noonu loolu waxtaan la parce que nit ki boo ko touché ba gaañ ko ba pare am na loo xam ne mën na ko bañ a gisati mais ñun dañ koy woo si waxtaan bi. parce que xam naa ne xam naa ne da ngay woote jàmm. Mhm. Euh, dinaa la ko nangul. Mhm. waaye xam nga ne yow leer la ne ni te on est on est sur le plateau. Mhm. mën nañ bàyyi mu jàll que ni am na yenn kàddu yoo xamante ne. wala yenn écrit yoo xamante ne kii di Waly Diouf Bodian. da koy def te du loolu la ñuy xaar si un dirigeant. nit ki nag bu lay bu lay booy booy digle sangaay day fekk ne déjà ko yow nga set ba pare. maintenant nag da ngay woote apaisement ñu ñaan ñi nga xamante ne nag déjà ñoom la ñu licencié. ne ñoom ce sont des pères de famille et autres mhm. et que déjà ay responsables de famille lañ ñoom war nañ leen a mën a gestuwaat ndaxte am na ñoo xamante dañoo nekkaat ñoom tamit seen ginnaaw te si salaire boobu peut-être si lañ ñu yaakaaroon doon dundal également seen njaboot. waaw madame Cissé comme li nga wax rek effectivement mais ñun posture bi ñu nekkee nii techniquement les statuts de monsieur Waly Diouf Bodiang ou ses postes. Mhm. kooku. beneen affaire la. Mhm. léegi ñun perception yi ñu ci am dañ koy téye rek garder ko quoi. moo tax loolu laa la wax moo tax ma ne la nañ bàyyi noonu mu jàll. voilà a pas de souci. voilà léegi mhm. moom xam na tëjuluñu ay buntam. Mhm. ñu ngi waxtaan ak moom aussi ñi nga xam ne comme li nga wax statut yi dañ ko defoon ci. image ñoom vraiment regretté nañ ko. d'accord waaw baalu nañ ko ba fu baalu yam quoi léegi fi mu toll nii li ñuy ñaan rek mooy mu def yëfu muslim et puis ñun ñëpp aussi ñu delluwaat xool. fan la suñuy prérogative syndicale yem mhm. parce que c'est ça problème mhm. état bi aussi mu jàppale ñu sur la formation au niveau di dialogue social mhm. mu jàppale ñu si parce que dialogue sociale bi moo xaw a def défaut la technique de du dialogue social moo def défaut moo tax toujours autorité bi ak employé yi dañuy xaw di laalante quoi. Mhm. mais foofu noonu da nga da nga wax lu am solo. Mhm. muy dialogue social. xam nga tey jii dañ koy indiwaat léegi ba léegi si penc mi. Mhm. muy euh, père de famille. ak njabootam. tey jii yow nga yaakaar ne tey ji danga nga naan ne sama njaboot bi kat def na ma li dama koy couper les vivres. mais est-ce que yow mi nga xamante ne avant nga koy licencier est-ce que mu waroo moon andi de def des des des concertations. andi waxtaan ba xam ne ah man ci tiens lii ñii lan moo tax déggoo amul suñu biir. ndax duñ ko waxtaanee wala ñii lan lañ ma reproché. parce que yaakaar naa njiit boo xamante ne nangootoo ñu def la ay reproche yaakaaruma ne ñàkk euh, l'unanimité baaxul si kenn. effectivement unanimité moom ñun ñëpp kenn amu ko. Mm-hmm. mais. dafa am ay affaires yoo xam moo ñu précédé. d'accord y a eu des directions générales yu fi jàll. Mhm. surtout toutefois que ñoom am na yoo xam ne dañ ko waroon doxal mais dafa sooxee. d'accord bu doon ay lu mel ni ay élection de délégué bi personnel am na fi yenn saa yu yenn comportement yi ak yenn propos yi wala yenn yenn postes yi sax doo ko gis ci yenn acteurs syndicats yi mhm. syndicaux yi. mais yooyu yëpp amul direction yi fi jàll mu suñu am volonté wu organiser ay lu mel ni élection de délégué mm-hmm. parce que délégué bi sax mooy ki nga xam ni moo gën a assermenté pour kaasal nit ki mm-hmm. kooku nag dina xam fan la ay mbiram commencé ak fan la yem mm-hmm. beneen bi mooy euh, comme ni nga ko waxee euh, euh, moom nit bi moom nit bi li nga xam ni du koy posé comme act c'est pas parce que mooy eh, mooy kilifa gi rek li muy posé comme acte lépp baax na mhm. wala li muy posé comme acte yëpp baaxul il faut ñu comprendre aussi que ne dafa am régime bu bees bu ñëw dafa am ay genre nit yoo xam ne bon ils ont été bon au four de l'affaire mhm. maintenant ci ci ci seen introduction mooy période yi ñu nekk si sept première mois bi day metti mhm. laalante bi day am dafay metti mais loolu lépp ñun suñu côté dañ koy tolérer. Mhm. ñoom it dañ leen ni ñaan ñu am hauteur ak grandeur si loolu. d'accord yow ni nga amee euh, grandeur boobu. ni nga mhm. amee euh, jëli hauteur si si situation boobee. Mhm. man dama jàpp ne Waly Diouf Bodian si boppam bu fekkee ne ñu woon rek pour def euh, defante et autres je crois que dinañ mën a dina problème yooyu yëpp duñ dinañ ko mën dinañ ko mën a épargner mais bu fekkee ne dellu si nañ rek si première vague de licenciement bi foofee sa port autonome de Dakar naka nga ko dundee woon. quoi parce que c'est des frères xam nga c'est des c'est des c'est des. au nombre de 700. waaw au total si li ñu wax. Mhm. xam nga ñun on n'a pas des chiffres purement officiels. d'accord les chiffres officiels au port c'est les. chiffres ngay xeex chômage andi euh, dindi fi ñoo xamante ne euh, licencié benn nombre de travailleurs boo xamante ne c'est au nombre de 700 700 bu ñu ko mënee lim si wolof mooy juróom-ñaari téeméer si ay liggéeykat. Mm-hmm. yoo xamante ne mm-hmm. euh, dàkk nañ leen waaw mm-hmm. ñoom ay temporaire lañ woon contractuel maintenant ñenn ñi seen contra yi bi mu jeexee renouveler wuñ ko automatiquement dañu dañuy suspendre le renouvellement en attendant audit bi jàll léegi ñun pour ñu laxarte loolu il faut que l'autorité nous présente les recommandations et les conclusions de l'audit léegi bu xoolee ci loolu sur la base de ça si lay mën a jëlaat booy yooyu nit ñooñu noonu sénégalais yooyu noonu nekk doomi réew mi dugalaat leen ci biir boîte bi ñu liggéey. est-ce que dina leen fa dugalaat. waa yaakaar naa ni dina dina leen fa dugalaat. Mhm. parce que boo xoolee la la référentiel du président de la république bi ñu présenté récemment à Diamniadio mhm. le référentiel Sénégal 2050 waaw le référentiel bi ñoom sa parle aussi de de commence sortir le Sénégalais de la précarité. Mhm. donc yow nit ki boo coupé contrat am rek. delloo war nga ko kon ci précarité bi. Mhm. donc ñoom loolu dañ koy xeex donc xam naa ne ñoom dinañ renouveler contrat nit ñooñu. Mhm. d' accord léegi tey jii eh, lan lan ngeen di wala balaa balaa ñuy dem rek rapport boobu nan amag amagul dara loo xamante ne jàpp ngeen ko si wala moom ngeen xaar génnagul. waaw audit bi moom la ñuy xaar génnagul. moom la ñuy xaar de manière officielle mu génn bon on entend que y a des pré-rapports y a eu des pour. léegi pré-rapport bi loo si jàpp. waaw man gisaguma ko carrément et wax naa ko autorité bi souhaité naa ko gis. Mhm. indi si aussi sama xalaat. pour mhm. les corrections mais ça tarde. waxoon nañ ñu bon benn durée bi durée bi ci lu ñu compter ñun xam nañ ne weesu nañ ko muy 60 jours. Mm-hmm. maintenant dañuy xaar ñu rendre factuel l'affaire. Mm-hmm. ñu xool naka la ñuy defee correction yi ba xale yooyu noonu di suñuy frères sénégalais yooyu noonu nga xam ne ay temporaire lañu ñu suspendre seen contrat ñu delloo leen ci bërëb liggéeykaay bi. Mm-hmm. tey jii lan ngeen di xaar si si si si si port autonome de Dakar wala balaa ñuy ñëw euh, si euh, lan ngeen di xaar ak défi yi nga xamante ne moom la ñuy relever moom la ñu war a relever yan jafe liggéeykat yu port di Dakar eh, di jànkonteel te ngeen eh, sàkku eh, si jëwriñ bi di Waly Diouf Bodian mu ad addu jëmee si lu nu mel. waaw jafe-jafe yi moom bari na buñ ko doon lim fii du fi jóge mais nga limal ñu si yenn rek. waaw waa jafe-jafe yi bon ñu ngi xaar lu mel ni politique sociale bi. Mhm. ñu gën ko ñoŋal. Mhm. parce que yenn yenn liggéeykat yi catégorie yi nga xam ne fa la ñu féetee. yàgg fa pendant dix quinze voire vingt ans bougé wuñ. xam nga avance wuñ. yenn aussi maanaam plan de carrière. Euh, plan de carrière bi ak la catégorie de la personne xam nga dans une boîte nga dugg fa à l'âge de trente ans. nga def fa vingt ans après muy cinquante ans. donc tu es à dix ans de la retraite. toujours même catégorie bi nga fa duggee nga taxaw foofu noonu. loolu noonu ñu ngi xaar ñu xool nuñ ko nuñ ko defaraatee. aussi tamit euh, politique sociale bi. Euh, la prise en charge euh, travailleurs yi ci wàllu paj meeg yooyu ci yenn yenn yi mm-hmm. ñu ngi koy xaar ñu ngi xaar ñu xool nuñ ko gën a ñoŋalee lu mel ni salaire yi salaire yi bougé depuis Baara Sadi ba léegi salaire yi au port bougé wul mm-hmm. donc te àdduna yow gis nga l'inflation ni mu ni mu yokkee yi fi xew yëpp Covid ak lu ne jaar na fi mais nit ñi ñu ngi jafandu ba léegi. aussi moom ñu ngi koy xaar moom kilifa gi mu présenter ñu un plan stratégique de repositionnement du port mm-hmm. parce que port ay jamono. boo xoolee Côte d'Ivoire rek la ñu mën a wax ne moo ko rawoon wala moom la doon nawlanteel léegi bu ñu demee ba nga xam ne port moo nekk ci mujju rang bi wala benn port lay jiitu wala dañuy dem ba koy tëkkalee Guinée nga war a xam ni kon problème am na on nous parle aussi de Ndayane lorsqu'on a souligné le débat waa mooy ñu ngi ñuy wax pooru Ndayane mhm. depuis bi ñu commencé di wax pooru Ndayane euh, autorité bi bi fi newoon. investiratul ci port de Dakar. dañu bàyyi port de Dakar na mu meloon. ba moo ñu waral moo waral yenn infrastructure yi nekk ci biir port bi doon am problème. moo waral aussi ñuy régressé wu congestion boo xam ne du jeex. congestion bu dul jeex camion yi fii xat-xat yi ci bunt bi demee noonu léegi nag ñun loolu noonu d'accord nañ pour dem ndaayaan xam nañ ne ndaayaan bu ñu fa demee ñii nga xam ne sax mooy temporaire yi nga wax ñoom ñëpp xaj nañ fa. léegi loolu la ñuy xaar kilifa gi muy Waly Diouf Bodian ban plan la ñuy présenté ñu accompagner ko ci ci plan bi comme ni ko ministère des finances et le gouvernement du Sénégal war di accompagner. Mm-hmm. d'accord léegi euh, bu ñu ñëw si les defi xam naa ne laal nga ko muy euh, euh, peut-être ñu waat pour autonome de Dakar mu delluwaat si place bi mu nekkoon. Mm-hmm. waaw défi moom dafa dafa dafa dafa kenn mënu ko natt. Mm-hmm. waaw. place bi mu nekkoon xëccoo bu mag la compétitivité la bu dul jeex. Mhm. il faut que port de Dakar roy ci lu mel ni Abidjan. Mhm. il faut port de Dakar roy ci lu mel ni réew Maroc. Mhm. aussi euh, liggéeykat bi yi fa nekk nga xam ni ubbi nañ fi ay centre ay école di leen former am na ay jeunes yoo xam ne ba ñuy ñëw port amuñu métier portière. dugal nañ leen ci école port yi dugal nañ leen ci école yi def métier portière loolu noonu il faut waruñu ko sànni waruñu jékki-jékki rek bàyyi noonu mu dem. xam nga ku nekk ci boîte pendant sept dix ans ñu dem ba formé la ba nga dégg fa euh, euh, waaw góor dañuy xaar port yi nga xam ne mooy port secondaire yi ay Bargny Sendou ay portu Foundiougne daaxoo nga ak yenn port yi ñu xool nu ñu leen fa dugalee pour loolu noonu ñu def investissement boobu ñu def ci ci ci nit ki mhm. ñu bañ ko sànni mhm. hmm. euh, d'accord tey jii nii bu fekkee ne dañ naan ne y a des défis à relever yan manquement nga décelé foofee sa port autonome de Dakar waaw manquement yi bon bëri na boo xoolee euh, lu mel ni formation wu agent yi mhm. war nañ ko xoolaat formation wu agent yi. mais investissement également. investissement waaw mais comme mooy li ma la wax xam nga quand on parle de ndaayaan mhm. yenn saay yi da ngay gis ne état. dootul sawar si li fi ne. si port autonome de waaw lu bees lay kii. lu bees bu ñu tegee lu bees rek dañuy fàttali màgget li. voilà léegi ñëpp ñëpp ñëpp dañuy wax ne ndaayaan ndaayaan alors que c' est vrai que ndaayaan c' est aujourd'hui lañ ko war a defar mais c' lu future mm-hmm. mais li fi nekk li ñu téye gum. nañ ko préserver nañ ko préserver nañ ko ñoŋal ci wàll yëpp. Mm-hmm. sur la maintenance sur l' investissement sur les infrastructures maritimes. Mm-hmm. ak yi demee noonu ba ci nga xam ni mooy locomotive yi ñuy utiliser yenn xeetu gaal yeeg bateau yeeg. chalou bi yooyu noonu yëpp dañu ci war di investir pour aller plus rapidement parce que yooyu noonu benn bu si def défaut rek ngay gis ne port bi day xaw a sooxee loolu la nuy xaar moment yi nii ci défi yi au niveau du port autonome de Dakar. mais bu fekkee ne yenn bato yi dañuy daw port bu Dakar ñuy dem fële na le sa Côte d'Ivoire wala ñuy dem fële sax sa Guinée. Mm-hmm. est-ce que du tracasserie douanière yi la ak jafe-jafe yi ñuy dund sa port ba la. waaw loolu est-ce que waruñu gën a yombal également. waaw loolu noonu nga wax noonu effectivement dafa am. moo waral monsieur Waly Diouf Bodian le directeur général du port bi mu ñëwee mu indi la digitalisation la digitalisation des services portières boo xoolee douane beeg yooyu noonu ak yenn affaires yi comme jaabante bi nga doon jaabante entre mool 8 mool 4 mool 2 loolu nëpp dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko ñu ngi ci yu tànku éliminer ko mhm. ba commencé nañ dugg ci loolu te loolu mu ngi ñuy permettre ñuy gagner temps lu mel ni tracasserie douanière bi ngay wax ak euh, les trucs de de de de de frontalier de police et de gendarmerie kooku état wu Sénégal gis nañ ne mu ngi ciy liggéey mhm. mais au la digitalisation gis na ay avancées yu ndaw yu mu commencé indi. Mm-hmm. Mm. d'accord euh, donc euh, je crois qu'on a fait un peu le tour. Mm. mais euh, mën nga ñëwaat rek également ci seen attente lañ ngeen di xaar ci euh, kii di Waly Diouf Bodiang euh, jëme également yéen ci seen attente et au-delà de seen attente ñi nga xamante ne Waly Diouf Bodiang génn na leen fa. maanaam muy sept sept cent yi nga xamante ne maanaam dàq nañ leen ak ñaar ñi nga xamante ne ci statut WhatsApp rek lañ def ñu tekki seen ndombal tànk ñoom tamit. waa li ñuy xaar si Waly Diouf Bodiang ci fànn yooyu mooy lu mel ni temporaire yi mu présenter ñu les recommandations des audits ah renouveler seen contrat yi. Mm-hmm. lu mel ni ñaar ñi nga xam ne suñuy camarades de bureau syndical lañ. Mm-hmm. ñu delloowaat leen seen place su liggéeyukaay parce que nit ki fi mu def vingt ans. voire un peu plus xam nga foofu noonu mooy famille am. Mhm. maintenant y a des conséquences dafa am ay impact yoo xam ne da koy créer ci niveau psychologique nit ki. Mhm. ci niveau familial nit ki parce que yooyu noonu si ça persiste ça peut détruire même des familles. Mhm. te ñoom lu mel ni Waly Diouf Bodian ak élément nouveau régime bi nekk fii nii. ñoom c'est des exemples de société. ñoom toute forme d'injustice dundu nañ ko donc ñoom du ñu ku ñuy ñoom du ñu nekkuñu ñu nit ñu ñuy xamal lan mooy injustice. waaw. su su su loolu weesoo aussi euh, mm, le président de la République et son premier ministre sax euh, ils ont fait appel à à la sociale ils ont fait appel à la clémence. bu mhm. déggee monsieur le président de la République récemment mu ngi wax waxu baale. Mhm. donc quand on parle de baale c'est c'est c'est aller sur de nou sur de mhm. xam nga ku nekk tamit nga jox cër sa moroom quoi nga cëralee yow administré bi nga jox cër autorité bi autorité bi aussi mu yërëm ñi mu administré mhm. ñun ci loolu la ñuy dox ci loolu noonu noonu la ñu nekk moment yi mhm. Euh, sànq yaa ngi wax euh, cent personnes euh, boo ko dindee xam naa ne da ngay yokk lii di limu chômage bi mais également dafa am rek loo xamante ne xew na ci suñuy wax muy ñi nga xamante ne ñu ngi jël gaal gi ba léegi di de fële sa Barça Barça wala Barsak may jaale ñi nga xamante ne ñoom ñoo si ñàkk seen bakken dem nag ba ñoojoor euh, di euh, jaare ñi nga xamante ne ñoom ñëpp dañ see euh, am ay ndaw ñoo xamante ne jot nañ see faatu ñoojoor janwaar fim la ak fépp foo xamante ne nag boo jóge woon nañ si gaal googu nga xamante ne dafa déparé woon foofee sa janwaar je crois nga xamante ne jot nañ see ñàkk seen bakken mu doonati ay lim takku takku takku si ay ndaw yoo xamante ñàkk nañ seen bakkan Kane yow euh, nga nekk jeune également naka nga euh, gisee jafe-jafe yooyu nga xamante ne jeune yi ñu ngi koy jël ba léegi te pourtant ñu ngi dégg à chaque fois que ni ñii ñu ngi si ñàkk seen bakken te ba léegi terewul ñu ngi jël gaal gi di dem est-ce que euh, manque kii la ni nga koy wax dañoo amatul espoir si seen réew wala dañoo réer wala lu lu lu waral lu ni mel si sa xalaat. waaw loolu madame Cissé dama depuis des années maa ngi koy xeex. Mhm. waaw parce que de manière parallèle je maa ngi yënguti ci yu mel noonu ko mhm. bon man bind naa ci sax nguur gi. Mhm. ci ay solution yu mën a xeex loolu. même bu ko dakkalul mën na ko freiner. proposé naa ci sax nguur Sénégal. bon c'est vrai que boo dee jeune juddoo ci réew. jàng fi màggee fi wala nga jàng fi métier. Mhm. nga dem ba gis ne yow amatoo fi espoir. Mhm. amatoo fi yaakaar te nit ki. Mhm. amul lu dul yaakaar. nit ki yaakaaram rek la dese comme comme comme benn source de motivation pour mu nekk dans le quotidien sénégalais. Euh, bu demee ba jël gaal jël gaal boo demee ba gis nit di ko def rek mooy sës na. parce que as soo jàpp. wala nga nekk ko conscient dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. kooku du jël gaal. koo gis muy jël gaal rek. dafa am ci position yu mu nekkee dafa am ci état d'âme yu mu nekkee loolu mun nañ ko freiner loolu mun nañ ko mun nañ ko nu mu nu mu ko mën a waxee mun nañ ko wàññi. en quoi faisant. voilà en quoi mooy il faut que suñu état yi am politique de recensement carrément xale yi lan lañ def lan lañ jàng avant tout. Mhm. soit dañ def ay études académiques ba dem universitaire génn ba dem université génn war liggéey liggéeyuñu wala dañ leen a former. ci domaine professionnel bi moo xam ci ay école wala centre wala lu mu mën a doon wala moo xam sax ci biir ci koñ yi parce que ñun ñëpp xam nañ ne ni ñu dëkkee suñu koñ yi am na ay lu mel ni ay atelier ak ay yu kenn yu me mhm. yu méngoog loolu voilà mhm. léegi ñooñu il faut que à la base suñu communes yi recenser leen xam ñooy ñan ñu xool nu ñu leen occuper mhm. occuper nag dafa yaatu mën nañ la jël nga liggéeyal commune bi comme mën nañ la jël teg la ci yoon financer la accompagner la nga liggéeyal sa bopp aussi suñu bureau consulaire yi fi nekk ak ambassade yi euh, le fait de rejet là les rejets de demande de visa la mhm. loolu ça motive l'immigration clandestine parce que bu ma la ñaanee kayit pour dugg tugal nga xañ ma kayit bi te yow boo bëggee ñëw ñëw ñëw boo bëggee ñëw ñëw réciprocité boobu il faut ñu xoolaat ko quoi même si buñ ko mënul xool mu égal égal mais il faut ñu xoolaat. te nguur gi mu ngi siy dox. waaw nguur gi bu ni ma déggee le ministre des affaires étrangères la femme la madame Fall ni ma mhm. déggee mu koy waxee moom mu ngi siy dox. Mhm. mais réciprocité boobu il faut nga xamal carrément tubaab bi. Mhm. lan moo ci responsabilité moom parce que les bureaux consulaires et les ambassades de ce yi fi nekk. dañ ci am responsabilité. rejeté naa la rek rejeté nii jël sa. Hmm? jël sa jël sa xaalis delloo la sa passeport. bàyyi la nga jël gaal loolu dañ ko war xoolaat aussi tamit euh, euh, ambassades yi il faut que ñu jéem a ànd ak euh, le ministère le ministère des Sénégalais de l'extérieur et le mm-hmm. ministère de la formation professionnelle ñu xool naka la ñuy xoolee ci jeunes yi ñuy former fii mm-hmm. naka lañ leen ni mën teg ci yoon pour ñu mm-hmm. mën a dem tugal Euh, daan seen doole. d'accord jëriñ Occident bi. d'accord mm. ñu ngi fi également ak Ibrahima Diassi Ibrahima Diassi di invité Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu nar a waxtaanee euh, cyclisme euh, moom mu bàyyeekoo ba fële sa Ziguinchor doon koo xamante ne mu ngi yëngu yëngatu si wàllum tàgg ak yaram ñu xàmmee ko si loolu ràññee ko si moom également mu nekk si plateau bi waaye balaa ñëw waxtaanee sport rek ñu ñëw si jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw yi ñu ngi koy jànkoonteel bay jël gaal gi. voilà donc euh, maa ngi d'abord euh, nuyaate encore sama co parce que euh, xaw moo ne moom <laughs> syndicaliste la woon xaw ma aussi ne port lay liggéey te ku wax ne dugg gaal aussi xam ne géej ngay jaar te ñu nekk port ñoom dañ ci am benn responsabilité boo xamante ne indirectement ou directement boo xamante ne xaw na leen laal quoi parce que ku wax géej rek port ngay xalaat léegi nag euh, dama yaakaar ne comme ni mu ko waxee dafa am désespoir boo xamante ne moo cultiver ci Afrique soo xoolee euh, rawatina Sénégal parce que réew réew africain yu bëri rêve jeunes yi tey mooy ne ma mun a voyager dem Europe da ngay voyager saa nekkee Europe sa voyage normal ay nit ñi leen bul dellu si mhm. donc loolu cest à mentalité africain moo mel noonu mhm. il faudrait que ñu am communication boo buy permettre ne loolu mun a changer mais il faudrait également que euh, li ñuy li ñuy wax ci fonds par exemple le, euh, les fonds de lutte contre l'immigration clandestine mm -hmm. soit en tout cas orienté mu orienté ci secteur yoo xamante ne ñoo ñoo ko war a yenn mm-hmm. mais parfois da gis ne gouvernement yi dañuy recevoir ay fonds yu bëri ci lutte contre l'immigration clandestine mais doo ko sentir sur le terrain mhm. parce que immigration clandestine ku koy wax da ngay dem si gox goxaayaan ngi si village yi mhm. jéem a xool ne ñooñu ban mode de vie la ñu nekk jeunes yi fa nekkee comme lu mu ko waxee mhm. recenser jeunes yi xam potentiel yooyu noonu nii lan moo ci nekkee et tout mais également euh, le savoir fair ñu valoriser ñu valoriser ko parce que Sénégal nag diplôme yi ñoo ñu yàq nag. Mhm. lépp luy kii même booy dem compétir pour benn liggéey. Mhm. ay diplôme la ñuy laajte fale wala nangam. Mhm. te ñëpp mënuñu mën a nekkee ne ñoo xamante ne c'est des académiciens c'est pas possible am na ñenn ñoo xamante ne dañuy xarañ ci leneen te pourtant jaaruñu école mais am nañ ci xam-xam bu permettre ne ñooñu mun nañu leen insérer feneen pour ñu mën a liggéey si. nit sax da ngay def nga apprendre dara. tey dans le temps nga dem ba yow nga raw keneen koo xamante ne école la jaar sax mais bu ñu demee ba détecter talent yooyu noonu nii nañu leen jëlee ñu xool nu ñu leen di mën a insérer feneen malheureusement euh, da ngay dajee ak ñeneen ñu ne la kii moo créé lii kii moo def lii te pourtant euh, suñu politique du ñu intéressé wu si mm-hmm. parce que pour pour ñoom bon bu ma war a def appel d' emploi damay dem directement ku am euh, master fale wala doctorat fale kooku laa war a jëlee. Mm-hmm. alors que innovation. boo déggee léegi tubaab yi lu ñuy ne par exemple ne l'innovation l'innovation c'est quoi c'est que les gens doivent aller par le savoir-faire mm-hmm. savoir-faire yi war nañu mun a sax génne ay diplôme universitaire yoo xamante ne ne yow mm-hmm. soo mun a defar dala boo ko defaree même bu dee mosoo jàng ñu ne la da ngay dem université nga compétir nga créer jury yi toog ñu xool ne yaa ko def. ñu jox la benn diplôme buy attesté ne yow mun nga def lii. muy employabilité bi. donc loolu dalay permettre ne. Mhm. tey soo nekkee cadreur. Mhm. yow cadreur yow nga nekkoon photographe nga jékki-jékki nekkee cadreur cadreur boobu noonu nii nga am ci xarañte. Mhm. léegi war nañu mun a dem di euh, université wala sexe yi ñu xool. ñu jox leen diplôme ne lu leen di permettre ñoom tamit ñoo am liggéey feneen. donc loolu la ñu war a def mais l'immigration clandestine dafa nekk kii boo xamante ne ni dafa xóot trop. Mhm. parce que ambassades yi dañ ci am responsabilité. rejet lu muy wax nii. man gis naa ko ba tey. dañuy rejeter pas sans motif normal sax. Mhm. motif bu ñu lay souligner benn ligne bu ndaw la rek ñu ne la par exemple euh, refus euh, document incomplet et autres. Mhm. te doo xam ban document la ñu lay cité ne lii moo manqué directement. par exemple pour ñeneen. man quand je voyageais j'avais déposé avec des gens yoo xamante ne bu ma déposé ñu rejeté seen euh, visa yi te pourtant ñooñu amul benn kii pièce boo xamante ne ne bu dañ leen ne bii moo manqué. Mhm. donc moo tax ambassade yi ba pare teg si xaalis bi nga xamante ne joxe nga ko da nga koy. très bien ba pare lu gën a kii sax mooy ne lu euh, lu gars yi di fay. Mhm. surtout si euh, prestataire bi. ndax day dem ci ambassade walla déet mais si prestataire bi la ñu koy fayee. Mhm. mooy euh, global euh, V V VFA par exemple nga fay fa donc soo fa fayee li ngay fay du ñu la ko rembourser. yow am nga amoo kenn du la rembourser dërëm. Mm-hmm. loolu il faudrait que ñu revoir parce que euh, bu ñu nee collaboration par exemple entre pays il faudrait que ñu xool le juste milieu mm-hmm. qui doit permettre à l'autre de pouvoir peut-être. Euh, émerger et de se développer keneen ki tamit ñu permettre que moom tamit mu émerger mu développer ci lu muy nekk mhm. et immigration clandestine moyens yu fee ñëw nañu wàcce si village yi mhm. waxtaan ak jeunes yi ñu sensibiliser leen ñu détecté ñu ñu mën a accompagner ñu regrouper leen former leen. ñu accompagner leen loolu moo ci mën a moo ñu moo. te te li si gën a mooy da gis ko xamante ne dem na mu ne la bii mooy sama dixième fois te bu ma ko gisaatee damay dem euh, li tax muy ñëwaat si yow mooy euh, am na ñoo xamante ne euh, bii nga xamante ne fële sa mbuur gaal ga suuxoon na fa ba nga xamante du toll si on parlait de deux cent personnes yoo xamante ne jotoon nañ si ñoom moom la gaal gi defoon am na boo xamante ne ay ay joueurs. presque toute une équipe ñoom ñoo ñoom ñoo si mujjee ñàkk seen bakken euh, ñun tamit di def wàllum tàggat yaram donc mu mel ni tamit ñi nga xam ne dañoo nekk si ndaw ñi di tàggat yaram également di def sport nañ leen gën a valoriser gën a doole sport bi xam naa dinañ si ñëwaat euh, si kanam tuuti lay doon. bàjjen tamit mu ngi si plateau bi euh, nar a waxtaanee people waaye balaa ñoo ñëw si people naka nga gisee immigration irrégulière bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko. ni <laughs> ni ma ko gisee moom. rafetlu nga immigration irrégulière. d'accord jërëjëf xam naa ne si kanam tuuti ñu ñu ñu ñu yaatal. wala wala ma bàyyi la rek nga nga leeral ma li ngay wax rafetlu nga ko allez-y. c'est que dama si dama ko suivre carrément. waa voilà loolu moo tax mënuma si. mënoo see kii mënuma si xóot voilà d'accord léegi Souleymane ñu ñu dellu si euh, ba léegi si euh, jafe-jafe yi nga xam naa ne foofu la ñuy tëjee sax ndaxte tey jii bu fekkee ne ñu ngi naan ne euh, port autonome de Dakar liggéeykat ya fa nekk peut seen jafe-jafe ñu ngi koy ñu ngi koy ñaawlu est-ce que tamit jotul ñu xoolaat payoor bi nga xamante ne ñu ngi leen koy pay li ñu ne ñu ngi leen koy fay liggéeykat yi. waaw loolu lépp bon je pense que direction générale bu bees bi bon évoqué na ko sur sa passation de de de, de payoor bi wax na ne dañ ko war a xoolaat euh, euh, politique sociale bi dañ ko war a xoolaat optimalité wu personnel bi dañ ko war a xoolaat mhm. mais loolu lépp rek mhm. pour nga xool ko ba wut ay jéego yu bees mhm. mooy il faut que nga basé wu si audit yi mais audit yi bon fi lekk génnul ba ñu teg ko ba xamal ñëpp lan. kon yow daal mënoon naa maanaam mënoon naa bàyyi ba audit yi génn maanaam daal ma soog laa invité. waaw non bu nii ci nii sax mën nga ma invité parce que bon loo gis rek dafa am yoon. d'accord xam nga lu nuy audité di ko càmbar. Mhm. Euh, génne guñ ko teg ko ci place publique euh, ci du ma ne sax place publique bi mais jox ko concerné yi ñi nga xam ñoo yëngu ci port bi. Mhm. jotaguñ ci. fi mu toll noonu mënoo cee wax yokkal ma wala wàññil ma 10 francs mm-hmm. Mm-hmm. fi mu toll nii autorité bi mënul wàññi ci payoor bi 10 francs mënu ci yokk 10 francs mm-hmm. parce que audit léegi nag ñun li ñuy gis comme audit yi c'est pour bien faire donc suñu xaala xii na mooy yokk mu naam léegi nag loolu noonu tànk yi nga xam ne moom la jël tànk yooyu lañ bëgg ñu gën ko baral daal mu gën a gaaw mm. d'accord kon ñu bàyyi la nga tàggoo waaw merci beaucoup madame Cissé di nuyu groupe Walfadjri yëpp fii moom suma kër la. di nuyuwaale Pape Diallo également di nuyu euh, monsieur Diallo Pape Birama euh, le chef de division de la formation au dialogue social. Mhm. actuellement nekk suñu tuteur nekk suñu papa nekk suñu lépp duñu tette depuis des années. Mhm. di nuyu aussi toute la communauté portière di nuyu syndicat bi ma bokk. Mhm. di wax aussi le directeur général du port autonome de Dakar que ni ñun. gis-gis bi ñu am ci moom mooy gis-gisu euh, kilifa. Mhm. gis-gis bi ñu am ci moom mooy gis-gisu espoir dañu am yaakaar ci moom. Mhm. dañu am yaakaar ci doxalinam. di ko wax ne aussi encore une fois monsieur Diouf Waly Diouf Bodian ñu ngi lay ñaan euh, ñi nga xam ne euh, licenciement bi dafa dal seen kaw di suñuy camarades syndicalistes nga teggil ñu ko ngir. Euh, jàmm ngir ñun li ñu séq mhm. ngir réussite port mhm. di wax tamit aussi sénégalais yi nekkoon ci biir port bi doon fa daan seen doole nekk ay temporaire ñu ngi lay ñaan aussi nga renouveler seen contrat jàpp ci euh, politique euh, de de de développement bi am ci réew mi mhm. et puis nekk loo xam ni day nekk facteur pour xeex ndóol parce dugalaat xale yooyu seen bërëbu liggéeykaay ñu delluwaat liggéey mooy yaa ngi xeex ndóol. Mhm. te yaakaar naa ne ñoom loolu ci li leen tax a jóg ci la bokk ba présenté nañu ko ci référentiel deux mille Sénégal deux mille cinquante bi. Mhm. te yaakaar lañ ci am. Mhm. amuñu ci benn doute vraiment yaakaar lañ ci am di ko souhaiter aussi une réussite totale. merci beaucoup waaye man daal li ma koy euh, fàttali rek mooy que ni bu fekkee ne yow Waly Diouf Bodian lépp loo xamante ne xalaat nga ko euh, mën nga koo wax donc je crois que euh, keneen koo xamante ne également am na xalaatam na ko bàyyi rek mu mu wax mu mu mu wax xalaatam parce que si on est dans un pays de démocratie qui est le Sénégal et que je crois que lii di liberté de la parole également kenn mënu ko ay kenn nit ki mën na mën na mën na mën na mën wax xalaatam mais aussi peut-être xalaat également ñu teg ko si yar ak euh, ñu teg ko également euh, sur euh, des bases solides nga xamante ne di nga xam li nga xamante ne moom ngay wax donc nag mu mel ni suñu rubrique éco entreprise fii lañ koy yemale ba altine bi nga xamante ne moom la ñuy ñëwaat te fàttali rek Waly Diouf Bodian que 700 emplois yooyu nga xamante ne ñoom lañu ñu génne woon foofee sa port autonome de Dakar ak ñaar ñi nga xamante ne dañ leen dàkk ndax rek benn statut WhatsApp ñoom ñu ngi jéggalu di ñaan yi rek ngeen delluwaat leen fi nga xamante ne euh, foofu la ñu nekkoon ñu siy jaajëfal nag ki nga xamante ne moom lañ fi dalaloon di sàmm Ndiaye di chargé des revendications euh, bu travailleur euh, bu Souleymane Ndiaye di chargé de revendications bu syndicat bi nga xamante ne moom moo majoritaire foofee sa port autonome de Dakar ñu dem nag jëli ji suñu rubrique people wala sport ñu dem people ànd si ak Badiane en attendant Cheikh Ahmed Tidiane Gomis

Dame Badiène si bi lépp euh, plateau ñu nar a waxtaanee euh, lu jëm si wàllum euh, people Badiène maa ngi lay nuyu. Mhm. waat suñu invité bi. Mhm. li ñu leen indil tey ci people mooy influenceur bu mag bii laay wax sax. Mhm. di Fatou Ndiaye. dañoo daal di jël benn vidéo am daal di koy montage ndax dafa am benn ndaw soo xam ne. dafa def benn vidéo waaye bu waxee chou rek ñu baal ma ci kàddu gi awra ku góor dafay daal di feeñ. léegi nag su waxee chou rek awra ko góor dafay daal di feeñ. léegi ñu daal di jël euh, faatu Ndiaye. Mhm. daal di montage vidéo vidéo yi euh, su fekkee mën nañu ko jàllaleel. moom Fatou moom Fatou Ndiaye Isaaxa mu ngi si régie bi. waaw allez-y allez-y voilà moom Fatou Ndiaye ñu daal di jël vidéo bi. Mhm. moom tamit daal di mu mel ne moom moo def vidéo bi fekk na du moom. Mhm. parce que nee na du moom dañu jël euh, original bi mi ngi ak man bi ñu monté tamit mi ngi ak man ñu daal di def ne comme si que moom Fatou Ndiaye moo def vidéo boobu moom tamit heure bu. def benn son tiktok ko mu mel ne souligné rek awra ko góor gi tamit dafay daal di dugg loolu daal di indi coow ba benn maire daal di def sortie di wax ni ko Fatou Ndiaye bett nga ñu yow yi nga xam ne Touba nga dëkk jàng alxuraan mokkal ko wara woon def lii di ko xas daal mhm. parce que ñoom xàmmeewuñu montage ak lu nekkul montage mhm. xam nga mag ñi moom mhm. bokkuñu xale yi duñ ci eh, bàyyi xel voilà loolu daal di indi coow ba tax na faatu daal di génn ne moroomu yaayam la du ko dépassé vidéo bi mais du moom ba maire bi euh, daal dinañ xam ne vidéo bi du Fatou Ndiaye génn tamit di jéggalu mhm. voilà vidéo yi envoyé woon naa ko su fekkee la ñaar vidéo yëpp ngay teg voilà non benn dañu jël dañu jël collage def Fatou Ndiaye ñu wax la parti jëkkër daanaka bañu ko jàngal yàq na sa bopp nga bët ñun ñax dëgër nga fukk suuf mii xamoon naa ne yàq fi njëkk a def ñax nga ki sëriñ Tuuba Mbàkke loo bëgg bëgg dina woon wér këpp di ko gis man yow diñ ko si nag te du lu baax yéefar yi koy def faale wuñ lay faale mère dégg naa bu baax li nga wax mais du ma la jël bu baax baax du ma la ñàkk kes bu ma la man may sama dañ dañ may am yenn kii kii am yoo xam ne dama ko jëm si yow nag xëy na sa gis-gis foofu la toll gis doom bi jàpp nga mën ñu jugé mën a jël kumba bu baal naa la ko te yàlla la yàlla baal nee nga su yóbboon du ma jàng ndax alxuraan du ma jàngoo ba fii dèjà euh, duma tontu ci loolu yàlla suñu borom rek moo xam te maa ngi koy ñaan yàlla nañu àtte ci barki Seydina Mohamed te sa genre bu nii ci tiktok bi moo tax damay bañ ba dee gor laa man ñaari goro ma ju ma juddu ñett telle xaw ma lu bon xaw ma def lu bon xaw ma wax lu bon wër ngeen ba so sonn pour seet si yàq deru faatu amoo leen fu ngeen koy jaaree ngeen di jël di montage bi teg ki def montage bi sénégalais la dugg naa ci compte am naa ko localisé naa ko ba xam-xam la